alhamdulilah ala kulli al ñi ngi sant yàlla ci jëmm jim ñi feeñoo muy jëmmu cheikhuna cheikh Mouhamadou al amin waaye ñi ngi leen di ziar bu baax di leen màggal di jël ziar yu màgg yu kawe yu tedd di ko teg suñu loxo jëwriñ cheikhuna cheikh Chérif Mbodj tegal ñu ko ci loxo góor yàlla yépp waaye ñi ngi beral nuyoo ki nga xamante ne moo waral bés bi muy Cheikhouna Cheikh Omar Sané Cheikh Omar ñi ngi lay ziar di la màggal di la tatagal bu baax a baax yow itam ñi ngi jaar ci yow ngir ziyaar ñépp ñi nga xamante ne euh, waa dëkk bi la teewal la ñi la jàppale ak ñi nga àndal boobu ba léegi ci bis bi waaye soxna yu tedd yu kawe yii ma jàkkaar lool tamit maa ngi leen di ziyaar di leen di màggal bu baax a baax ñi ngi beral tamit ziyaar ak cent suñu jëwriñu daara di suñu royukaay muy Cheikhouna Cheikh sa njaay nga xamante ne boobu ba léegi ci ginnaaw moom lañ topp mu ñuy wan yoon di ñu tette ba tey ñu mën a toog fi yore mikro jàkkaarloog jaam ñi bu ko defee rekk dañuy àndiwaat nuyoo bi ci nuyoo jullit muy asalaamualeykum wa rahmatullah wa wa barakaatuhu yàlla na jàmm ak mucc ak xéewal bu ànd ak barka sax dàkk ci jaam ñi ah li ñuy waxtaanee nag mooy dañoo nekkoon ay jaam yu xeebu yu suufe ay jaam yu réer yu doon seet seen bopp ñu xëy benn bis ci coobare yàlla ñu dajeeg suñu yonent ki nga xamante ne ah, xam yàlla boobu nag lépp luy kàddu ci àdduna lépp loo xam lépp loo yëg te waxuñu la ne kenn du xam yàlla te jaaroo ci baatub laa ilaha illallahu ku la ko waxul nax na la ndax baatu laa ilaaha ci la jaam di jaar ngir xam yàlla ndax dafa nekk baat bu màgg bu kawee gëna a kawe julli gëna a kawe woor gëna a natt natt asaka ak lépp luy xeetu ibaadaat baatu laa ilaaha mooy ndeyam ndax moo ko sos kon ndekete jaam dina juddu màgg nekk ci ay mbir yaakaar ne moom xam na boppam am na cër ci société bi am na cër ci àdduna am nu mu yaakaaree boppam ndekete moom du dara ndax liy def nit mu doon dara loolu ci secret baatu laa ilaha illallahu fa la nekk ndekete àdduna biñ fi ganesee ba léegi lépp loo xam ne ñi koy gis wala ñu koy dund walla lépp lu xew moo xam organisation lu lu mu mën a doon ndekete jëleewuñ ko fenn lu dul ci xam-xam bi nga xam ne moo lakkatu ci secret baatub laa ilaha illallahu xam-xam boobu moom moo fa moom moo fa lakkatu baat boobu nag moom lañ taxawoon di ko tudd léegi moom ngeen di dégg bay faali di ko wax góor yàlla yi di ko wax bépp tànt bu ne tàntu diine la bu ngeen fa àggee lu mu gàtt-gàtt di ngeen gis ay jaam def kuréel di tudd baat bu màgg bu sell bu kawe boobu muy baatu laa ilaha illallahu baat boobu nag màggaayam fu ko jaam nat weesu na ko ndax baat boobu la yàlla wax ne mooy man man maay moom baat boobu la yàlla wax ne moom baatu laa ilaaha mu ne mooy sama kàddu waaye wax nañ ne mooy kalimatul xuraya mooy kalimatul najja kon bépp jaam bu am daraja wala mu yëkkatiku te yëkkatee kuwul ci baat boobu na ko leer ne darajaam boobu fii la yam ci kaw suuf wante bëtul àggul fa nga xamante ne mooy xadara laahu muy bërëb bi nga xam ne mooy bërëb bu sell bi nga xam ne kenn ku ci nekk moom ngay war ngir nga mën a mën a dellu ci bërëb bu sell bu yaatu bu leer bu leer boobu secret boobu nag nekkul ne tant bu ngeen gis ñu tànt ko li tudd baat boobu ñooñu yor nañ secret ba déedéet waaye wax nañ ne nag tàmbali tàmbali woote tarixa lu ci ëpp muy ñaseen muy tiijaan muy murit bu mu mën a doon secret baat bii moo ko sos moom lañ xamoon yëg ne dañ ko war a tàllal jaam ñi def ay tànt woo ay nit tudd ko ci kaw ba ñépp teew ñu leeralal leen ko maanaam jël secret bi nekk ci baat boobu yëgal leen ne hé yéen da ngeen war a xam secret laa ilaaha illallaah ndax bu ngeen ko xamul kat mënoo leen def dara lu baax alxuraan moo ko seede mu ne bépp jaam boo xam ne mi ngi yëngu lu mu mën a doon ba ci julli te xamul yàlla mun jaam boobu mbiram yépp sobe la ku xamul yàlla sa jëmm ji yépp sobe la sa ruux gi amul leer bu ko niital ndax laa ilaha illallahu mooy raxas ruux xu jaam delloo ko ci yàlla laa ilaha illallahu mooy xéewal bi nga xam ne moom la ruu bi bàyyeekoo woon ci yàlla di xéewaloo ngir mën a am leer mën a am njariñ waaye mën a nekk jaam bu kawe bu màgg bu tedd baatu laa ilaha boobu nag moom lañ ne képp ku ñu wan sa këréem nga jàkkaarloog yàlla suñu suñu boroom jaam ñi buñ nee gis yàlla mu nekk baat bu rëy ci ñoom te buñ la nee gis jaamu yàlla mu nekk baat bu oyof ci yow waaye yàlla ak jaamam kan moo ëpp yàlla suñu borom bi mu ñuy sàkk di ñu wàcce ci kaw suuf jaamu ko rekk moo taxoon mu sàkk ndax wax nañ ne wa maa xalaqtul jinn wal ins ilaal bul yax bu duuni sàkkuma nit ak jinne lu dul ngir ñu jaamu ma kon yow nit ndéem yaa ngi considéré sa bopp nit booy lekk na la leer ne yow booy lekk sa bopp ngay lekkal waaye yàlla moom jaamu moo tax mu sàkk la booy nelaw naka noonu lépp looy yëngu yàlla taxul te gisuloo yàlla moomu nga xam ne moom moo lay yëngal na la leen sa bopp ngay jëfal defaragoo dara yàlla mu nekk nag loo xam ne dafa jaaxal jamono gis yàlla dafa jaaxal jamono waaye Cheikh Moussa Cissé mi nga xamante ne moom mooy précurseur yàlla yàlla yi xam-xam bu set bu leer nañ la yoroon jëlee ko ci sangam ba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasool waaye li tax ñun wooweewu ay murit Cheikh Moussa dafa xam ne bépp woote bu jaam ñi miin day mujjee ràpp ci ñoom li koy animé mooy yeesal waaye génn ci dëgg goo xamante ne dañ ko doon laam-laamee di ko làkk ndax àgg ci yàlla ah, innallaahi minnallaahi ay na muridulaahi ci yàlla laa jógee ci yàlla laa jógee ci yàlla lay dellu Cheikh Ahmadou Bamba kàddoom bi gën a frappant kàddu boobu la ñu ne moom dafa nekkoon ab jaam boo xam ne ci saayir ku doon wër yàlla la waaye amoon ay waajur yoo xam ne ay xaafisu xuraan lañ woon ñu yar ko ci culture diine mooy li ñuy woowee le rituel bokkul ak le spirituel le mooy yëngatuy jëmm yi nga xamante ne yàlla wax na ci alxuraan ne keroog yow mal fayu ko mu ne xol bu laab lañ koy andil ñu fay la ci misaal jàmm bi kenn du ko fay entraînement jour komba komba bi nga xamante ne engagement la mu am ay seede ñu tëgg ko loolu la ñuy xaar mu bëre ko ñu fay ko kon yàlla jaam bi nga xamante ne dem na ba xàmmee mooy ki nga xamante nekk na jaam bu ràññee am bakken bu dal kooku la yàlla soxla pour mu dëpp dellu ci moom jaam boobu nag lu ci ëpp day fekk ba muy nekk ndaw tàggat nañ ko ci chariatul islaam muy xeetu ibaadaat ñoom julli woor natt asaka yëngatu yi nga xamante ne moom la ñuy def ngir ñu mën gis ne jaam bi kat bokk na ci bërëb bii jaam boobu dina fekk ne ay waajuram yar nañ ko teg nañ ko ci yoon bi ñu yaakaar ne mooy yoonu baax jàngal nañ ko julli jàngal ko woor ràññeeloo ko lu baax tere ko lu bon amaana sax ñu yóbbu la alxuraan wala ñu yóbbu la wala ñu cultiver la ci ngay dem mees wala yeneen yu ko demee noonu kon xam nga loolu yépp boo ci amee habitude ba pare ñu ne la dëppal dellu sa borom war nga tourner pose waat sa bopp question waa man jàng naa alxuraan ba wàccee waa man maa ngi julli waa man yéenewu ma kenn lu bon waa man gis nga am naa lii def naa nii waa man lan moo tax ñu ne ma naa dëpp dellu sama borom benn benn affaire bu ndaw boo xam ne jullit ñi dañ koy sàggane alxuraan wax na ne jullit kenn du ko judduwaalee jullit kenn du ko judduwaalee boo demee suñu mbokk chrétien yi sax dañ lay defal baptême defal la communion defal la confirmation ci ay geste ay rite waaye loolu bu njëkk Isa bam koy def leeru yàlla laa ilaaha leeru laa ilaaha illallah moo taxoon mu koy def muy alléluia muy liif laam asaxeer loolu nag benn tarixa benn diine bu yàlla yónni amu ci uute yonent yàlla Muhammad alayhi salaam moo ne man ak yi njiitu woon yonent yi njiitu woon mu laa ilaaha illa ana fa'buduni laa ilaaha illa laa moom lañ ñu joxoon man ak ñoom ci lañ doon jaamoo yàlla arfan bi arfin amul benn wuute kon Cheikh Amadou Bamba moomu bu dee loolu yëpp dajale woon na ko ba pare dellu ne bis tey ku fi jàng ak jàngale andi woon yeewi naa la wala demal ci maam Thierno ci yàlla laa jóge ci yàlla laa jëm ana na ma àgg ci yàlla ma àggale la ba koy wax amoon na jaam yoo xam ne tàggatoon na leen ci alxuraan ba ñu mokkal mën na ko mën koo ijji te duñ ci def benn fot fekkoon na ñooñu tàggatoon seen jëmm yi ci bépp xeetu ibaadaat waaye dañu ne amoon na ci sax ñoo xam ne dañ ne sëñ bi li muy wax nii lan la Cheikh Amadou Bamba ne leen am naa xam-xam bu gën doon doomi soxna am naa xam-xam boo xam ne moo gën jàng alxuraan ba mu jeex ba wàccee ko bindaat ko ba mu yegg te doo ko xool te doo ci def fot yor naa xam-xam bu gën loolu Cheikh Amadou Bamba ne xam-xam boobu bu tàbbee ci sa dënn mu ne da ngay toog ak nit ñi te doo toog ñoom mu ne nitu yàlla yi bu ñu jëlee seen xalima di ko bind jàpp si daa di ko bind si laaw maxfuus mu ne da ngay gis xalima gi gis daa gi gis laawul maxfuus di dégg xoos-xoos ba muy def waa Cheikh Amadou Bamba xam-xam boobu ba xam-xam la war a doon moom lañ ne moom lañ ne kii nga xamante ne moo ko joxoon muy Cheikh Moussa Cissé bi allahu anhu benn góor la goo xam ne mi ngi nekkoon Saalum dëkk bu sori ñu koy woowee Daaru jamono boobu expansion média amul rajo fi newoon communication bi ni mu yombee yombul woon noonu góor googu dëkk ba mu newoon ay kër yi dañ leen di wàññi waaye ba mu dajeeg sëriñu baayam ba muy Cheikh Amadou Bamba Khadimu Rasool mu ñaagal ko def ci moom secret laa ilaha illallah muy nekk tu tànk nag mu bàyyi léppam yàlla waajal ko ni mu soree ni mu xóotee fi ne mu xëy benn bés ne amuma benn wasila budul bamba waaye jaamu yàlla baatu laa ilaha illallahu mooma ci doy Cheikh Moussa delluwaat xool xam ne jaam ñi gisu ko amaana dafa am luy nelaw ci ñoom yàlla boo koy talal ab jaam danga koy fëgg fëgg dënnam fëgg xolam yee ko ci bopp mu xalaat ndax xalaat boobu du moom moom moo ko fi andi yàlla moo wax ci alxuraan ne yaa ayu albaabi borom xel yi ñoom lay waxal Cheikh Moussa ne naa ngeer yi nga xamante ne sëriñ si moom lañ làkkatoo woon taalib taalibe yi loolu nag olof la waaye dinaa joxe ay firndeel ay quelques firndeel nag yoo xam ne maanaam ngeer yooyu dinaa leen ko wan bu ko defee ngeen xam ngeeri lan la ngeer yi bokk na ci sa baay juddu jébbalu ci sëriñ diw moom moom moo jël engagement am xamoo lu tax mu jébbalu ci moom mu jur doom nga màgg nekk nit ni moom yàlla lim ko sas moom moom la la sas yow tereewul mu yóbbu la ci sëñ bi nga jébbalu ci moom sa doom judduwaat nga yóbbu bu ko defee sëriñ bi di nekk sëriñ doomam nekk sëriñ sëtam nekk sëriñ yow nga nekk taalibe sa doom nekk taalibe sa sët nekk taalibe e yàlla defewul noonu bu ko defoon bu doon noonu la defee kon Cheikh Ahmadou Bamba mii wax du woote ñu koy diingat ba nga xamante ne dañ ko reye woon ci gouvernement Sénégal jigéen ñi buñ daan mës a xas nit dañu naan jigéen lu mu bon bon dina jul am murit wala am mbaara ñinde loolu yàggul loolu nag li ma ci bëgg a misaal mooy nitu yàlla saa yuy feeñ day feeñe fu ngeen ko foogewul waaye bu mu jaaxalee ab jaam dangay delluwaat ci alxuraan lépp loo xamante ne Cheikh Moussa mi ngi koy wax daf ci am ay firnde yu leer yu jaam ñi jàkkaar dañ ko bàyyiwul xel ngeer yooyu nag moom la ñambe andi ngir leeralal leen ban yoon ngeen di jaar ngir mën a àgg dinaa leen wax nag lu tuuti loo xam ne jaam ñi duñ ci xalaat gis nga Sénégal jaam ñépp ay xol yu rafet moom lañ yor gis nga senegaal képp ku fi yeewoo boo xëyee da yaakaar ne yow nit ku baax nga ndax da ngay def lu baax nag di wax lu baax di sëkkanteeg nit di lu baax waa yow mi nga xam ne natt nga sa bopp ba xam ne yow am nga benn benn tokk mbaax mu ne ci yow ñu ne la yow Mame Diarra Bousso li mu mën a am amoo mënoo ko am li mu am mënoo ko am pour lan ñu ne sëriñkat wala ustaas sëriñkat day dégg day day dafay xam dafay xam alxuraan wala boog day julli day nangam yow defoo ko waaye leer na la ne yow am nga sa xol bi am na leer gu ci ne goo xam ne nit a ngi julli fee te yow yaa ko gën day am bañ nañ ko ba sax jamono bi lu ci ëpp sëriñu daara yi lu ci bari dañ leen di jiiñ ay ñaaw teef yoo xam ne yow booy borom xel da naan kii nu mu mën a defee lii te mu nekk jàngalekatu alxuraan di xam li yàlla wax mën koo firi ba pare di def ay ñaawteef kon kay ñaawteef ajuwul ci njàng kon nag samay mbokk yàlla bu leen waxee ne dëpp leen ngeen dellu jaam ñépp ñoo ci bokk yam ñun ñépp on à chance égale parce que nag dina am jaam bu bëgg a dellu ci yàlla ne ah man de ah damay nangam man damay nangam man damay nangam déedéet noo mën a mel tant xamuñu yàlla ki jàng alxuraan ba mën koo yëy ki nga xamante ne dafa dafay cëkkal ki nga xamante gisu ko jàng na peeg na téere yépp am na xam-xamu fikk ak ki nga xamante ne ndeysaan ci saayir baara ñinde lañ koy woowee ñoom ñaar bu ñu taxawee ci kanamu yàlla maanaam ci baatu laa ilaaha illallaah bii ñu leen di woo ñaar ñooñu ñoo ci bokk yem ndax baat bi ba ko xamee keroog la yàlla di la faxasal say bàkkaar yu njëkk ak yu mujj te dootoo ko amati du suñuy wax alxuraan moo ko wax ci sooratul muhammad ee yow muhammad faxlam annahu laa ilaha illa allaahu wastafir li ñu yaakaar ne bu fa yemoon ñu ne ci seydina muhammad la yem mu ñu teg ci ne walil muminina walil muminaati xanaa loolu leer na Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard def demi-tour pour dem ci yàlla royaume des cieux ñépp ci bokk yam Seydina Mohamed alayhi salaam am na jaam bu ñëw ci moom ndeysaan bëgg a tuub ne ko ah yonent man de damaa bëgg a tub waaye xam nga lu ma jaaxal man dama damay rey nit yonent ne ko tuub boobu mën na ne man damay sàcc mu ne ko mën na ne damay njaaloo mu ne ko mën na ne mu ne ko damay fen mu ne ko fen ngay bàyyi fen xam nga tax sa bopp boo ñëwee jébbal yàlla sa bopp da futteeku ba set da ngay wane sa bopp ngir ñu mën a def ci yow leer wallaahi tey jii képp koo xam ne xamul yàlla toog ci tànt bii ah yàlla de kàddoom ci jaam la moom la ko jaarale woon yonti yàlla Muhammad alayhi salaam ak ñi ko njiitu ak gaa ñu baax ñi fi nekkoon nga xam ne yonti moom daf ne al ulama yi warasatalu anbiya yi boroom xam yi ñoo fi uutu yonent yi waaye yonent sax xam-xam la risaala la ci gàttal président grade la grade la boo xam ne ku nekk mën na cee toog turu ndayu kenn newu ci képp koo xam ne am nga li nga xam ne moo la fay teg rek su boobaa di fa yegg waaye dafa laaj pas-pas ak itte pas-pas ak itte boobu moom lañ ne jaam bi mënu koy def ndere dafa dëpp dellu si boroomam nag bu ñuy gane ci àdduna yaa yaa latiif moom lañ ñuy waxal yaa latiif pour ñu teew te si jaam moom la jaar si ndey moom la jaar ci biiru ndey foofu lañuy ñuy jaar pour teew booy dellu ci biiru ndey ngay jaar pour dellu waxin la da jaar ci nit yàlla màgg na xarañ na xarañ goo xam ne bu ko neexoon da ngay xëy day nelawal ñépp cëppeel cëppeel ab jaam di ko sàkkee noonu lan moo tax mu ñuy jaare si ndey ak baay ndax booy dellu ci moom da ngay jaar ci ci nitu yàlla mu delloo la ndax diine islaam li muy màgg màgg màgg ni ma ko waxee léegi soobu la la ñu àggale la mooy da tuub nga dellu kenn du ko judduwaale yow mi nga xamante ne juddu nga ñu likaam si nopp bi gisa ko kàbba si nopp bële loolu deful jàppi jullit jullit da xàmmee ràññee ragal yàlla xam ne yàlla am na koo xam ne moo la sàkk dafa la ay cër ngay gis di dox di jàpp di noyyi te amul kenn ku la andil facture yàlla mi la ko ameel mi la xam ne moo la ko sàkkal moom moo la ne dama bëgg nag gannaaw ba ma defalee cër yooyu nga jaamu ma ci bépp jaam boo loxo dafa war a jàpp ci yàlla mu nangu tànk dafa war a dox mu ne la dëgg la dangaa war a dund yàlla mu ne la amul benn sikk kon dangaa war a gis yàlla ndax nag cër yépp faculté bu ñu mën a am lenn kese moo tax ñu sàkk ko yàlla moo tax yàlla bët boppam moo tax mu sàkk ko pour nga ko ciy gis wante loo gisul mënoo koo xam te loo xamul mënoo koo jaamu kon fardul ayni la ci jaam bu nekk jaam bu nekk farata la ci moom gannaaw ba mu ràññeewee mu dem wuti wasiila bu ko àggale ci yàlla mu dem jokk ci sang bu xam soobu waay yi mën koy fegal yoonu alkande dina ko tuddloo yàlla ba mu gis ko te mën naa àggale ab jaam ba ci boroomam laxdar yu moo ko wax mooy aaya bi mujj gannaaw ba nga xamee tey fa tey jëm demal nga wuti koo jokkool mu àggale la sëriñ bi nag dañ koy nat sëriñ boo yegg si mu ne la jullil ah de li ma leen digal mooy def leen ni Cheikh Fall bàyyi naa ko saa kër baay mu ne la wooral nga ne ko sama ndey tàggat na ma ci walla sama baay ndax dafa am xam-xam boo xam ne ñépp ñoo ci bokk yem danga koy jàng rek nga mën ko ñépp laa wax amul xaaj ak seen danga koy jàng wala nga toppandoo ko mën ko ni ñépp looloo tax nag Cheikh Moussa gannaaw ba ma dogee ngeeri gisoo ko sëriñ si li ñu làqatoo woon seeni taalibe dog naa ko sëriñ boo gis boo mënti jokk demal nga ne ko yàlla laa bëgg nga àggale ma fa julli ak yàlla duñu benn woor ak yàlla duñu benn def lu baax ak yàlla duñu benn yàlla ci moom ngay àgg ngir mën a ràññee lan mooy lan mooy nga ne coobare yàlla yàlla ci ndigal ci li mu namm loolu la jaam war a dox loolu nag ci gis yàlla rek nga ko mën a amee ci secret baatu laa ilaaha illallaah kese bool ko mën a leeral Cheikh Moussa dafa ne takkale naa islaam ak sharia ci bu wér ndax dañ koo boole te duñu benn te lu ëpp si jaam ñi boo ne maa islaam lan mooy islaam ñu joxoñ la shariatul islaam sharia nag baax na waaye ponk bi njiitu ci islaam danga koy jëfe ba pare nga mën a julli mu baax nga woor mu baax nga natt asaka mu baax nga tëdd di nelaw mu baax gisa ko ngay lekk mu baax comme ni ma ko waxee woon sànq loolu yépp mën a doon jaamu yàlla ci yaw axiixan nag moom moo ñu fi dajale moo ñu fi andi sariyatu bari na mi ngi fi ne xus waaye bu doon luy faj la fi mu toll nii jaam ñi dañ cee blende ndax li la koy misaalal mooy da gis nag ay ilimaanu jàkka yoo xam ne dañuy xëccoo dañuy xëccoo nodd lan moo tax ravitaillement bi ñëw fin du mois léegi wax naa ne koo xam ne day tiim kàddu yàlla nii jàng ko firi ko tourné di yàqataan ay xale gis ngeen ko dafa bari sax léegi loolu nag lan mooy def ñàkk ragal boobu mais parce que gisul yàlla moom yàlla mu màgg mu kawe mu tedd mi parce que da ko gisul rek da ko gisul kese yàlla ku ko gis la ilaha illallah non mais mënatoo ko ndax kooku certitude certitude ci yàlla la ne lu la leer nag ma tudduma ba ma màgg xam nga ban preuve moom laa ci am ah maa ngi ci wetam rek dama cee yeewoo bi ma xàmmee laa wax de yi xàmmee gis ko sama wet gis nga ko mooy jox ma lekk ci jamono bi ma ràññeewee kan moo fàttaliku ngenteem fi biñ koy accouché kan moo ko kan moo ko fàttaliku kenn eh on est pas kenn amul kenn mënul wax ne beneen jaam rek mooy taxaw ne la fekkee naa diw wala chassa wala nangam mais yow sa bopp dañ laa nettali amoo ci certitude certitude ah, ci yàlla la de gis yàlla di ci la nekk ndax day permanent gis na bu permanent su boobaa da ngay jomb su boobaa da jomb ay jomb-jomb moom mooy ne ci yow yàlla mooy defar xolu jaam baatu laa ilaaha illallah mooy raxas ruuxu jaam ba boo mettee yow kese sa biir néeg ngay sóor yàlla ci li ngay def ndax da lay tiim dajaxal fu yàlla nekkul amul laa ilaha illallaahu dara nekkul lu dul yàlla nga tourné di gis micro tourné gis caméra tourné di gis nit ñi gis couleur yi ñu ne loolu yépp nekkul yàlla moom moo nekk yow mi am xel yàlla nu mu nekkee lii lépp ñu ne yàlla kenn la kennal leen yàlla allahu waaxid la seydina Muhammad wax bi mu ñëwee alayhi salaam allahu waaxid kennal leen yàlla mu ñëw màkka toj xëram ya fa ne seen yàlla yu bari yii te pourtant dañ doon ñaan ci yàlla yooyu muy nekk mu ñëw màbbal ko ay xëram xam nga luy xëram xëram mooy aada bu ancré benn affaire boo gëm yàlla mi la tiim amee la amee la gën la jege sa buumu xol xolal seetaan la di la jàppale xaram weesuwul ngëm jékki-jékki ne gis nga ko diw lañ gëm moo toogoon ci jal bi d'accord Cheikh Amadou Bamba nga yaakaar ne noflaay bi xalifa bi tey nii am am na ko ñu war ko lu mu bëgg am ko nga gis ay taaliba yu naïf ay sëñ bi dafa garaaw de tey dafa xees suba mu ñuul sëñ bi tey dafa nàngam dafa tàng dafa sedd mais sëñ bi sëriñ bi moom keroog yow mal yàlla day wéetoog moom ci bàmmeel e yow yàlla day wéetoog yow ci bàmmeel sëriñ boobu dafa am ndey ak baay ñu yar ko mu yaroo ci xale yi di fo comme yow même chose léegi yéen ñaar seen diggante lan moo ci war a dox nga yaakaar ne del def lu baax defal nii lool la et insulté nga sa yaay ak sa papa ndax loolu ñoom ñoo ko def ci yow gis nga Cheikh Moussa dafa wax kàddu bu doy waar nee na mënuma tere golo di golo xam nga lu bëgg wax éducation de base c'est les parents ci dara waaye ku ñëw ci man ma def ci yow xam-xam boo yi ñu foral la xam-xam boobu nag dina dina jëmbi golo dina ko ci bàyyi de ndax leb leb la fay fayeeku waaye ji koy golo da koy dindi ba mu set wecc ci kaw mu lay neex ndax yàlla mën na lu ne waaye nag juddu yi melo yi wërsëg yi fi mu toll nii da cee noppi nag dangay laaj sa bopp boo jaaxlee ci yow ci sa bopp laajal yow avant sa yaay di la accoucher wala mu lay ëmb fan nga nekkoon ci yàlla nga nekkoon mais ci fan kenn ku ci ne wallaahi kenn ku ci ne sa ruux mi ngi woon alamul arwaax keroog bi yàlla sàkkee doomu aadama muy seetoo mu teg ko wallaahi ruu yooyu dañoo dëkkoon ak yàlla ruu yooyu la yàlla tegoon jàkkaarloog ñoom ne leen arastu bi rabbikum xanaa duma seen boroom xaaloo wax leen ruu ne ko balaa ahankay yow yàlla yaay suñu boroom ndax su ma leen wàccee ci kaw suuf di ngeen ma jaamu ahankay yow yàlla dinañ la jaamu ñu wàcce ñu daara dunya ñu jaar fi nga xamante ne Isa ibnu Maryam moom lay woowee fleuve de l'oubli péché originel jullit yi di ko woowee bàkkaar bi gën a màgg ci bàkkaar yi nga xam ne yàlla du ko baale muy bàkkaaru bokkaale bokkaale boobu mooy nga ràññee di gis di xàmmee li ngay gis te gisoo yàlla loolu mooy bàkkaaru bokkaale parce que buñ nee dara dara nekkul dara nekkul lu dul yàlla ngay xool di gis leneen leneen loolu moom yàlla day supposé que da nga koy bokkaaleeg loola léegi loolu nag lan moo ko mën a a dindi mais bu dee xam-xam bu ordinaire nii c'est pas possible lenn rek nga mën a def di xool armoire bi taxaw supposé ne armoire bi moom planche la woon planche boobu sûrement garab la woon garab boobu ci àll bi la nekkoon aha yow yaa ngi ñëw yaa ngi ñëw ci Seydina Muhammad alayhi salaam li mu ne dañ ma bind ci leeru yàlla bind niñ jaam ñi si sama leer man yonent ci yàlla lañ bàyyeekoo waa yow armoire bu bàyyeekoo ci garab waa du garab garab la ci yàlla lañu bàyyeekoo ci lañu war a dellu en vérité ñun bu ñu demul ba jeex ci nekkub yàlla mënuñoo dellu ci yàlla dañuy eere gis ngeen payib suñu boroom yaatoom doomu aadama kese mënu koo xam waaye alxuraan muy bépp téere boo xam ne rek ci religion révélé la jógee ñi ngi lay taggal yàlla di la ko kañal di la waxal ku kéemaane la koo xamante ne sax xel mënu koo jotee xel xel nag yàlla bi mu ko tuddee ci alxuraan dafa ne dafa ne ngir ñu teewlu ko moom ngir mën a agsi si moom moom la ñuy doyee xel xel pour loolu kese la muy bis boo demee ba yàlla yónnee la yonent comme li may wax képp ko fi toog kàddu yi ngay dégg convocation la boo xam ne ci yàlla la bàyyeekoo jëm ci yow donc du chance booy am saay su nekk déedéet ñiy jàkkaarloo bar ñi nga xam ne ñi ngi jàkkaarloo bés penc ñii lakk xam-xam bii nga xamante ne moom la ma seexu naa moom la man ngay defal ba ma toog fii man koy leeral ñoom ñi ngi gis ñi nga xamante ne ñoo déggoon kàddu yii ci jotaay yu xeebu yii te joguñu wuti ko maanaam tey secret baatu laa ilaaha illallaah amul kenn koy weddi laa ilaaha illallaah ñëpp d'accord nañ ne baax na waaye problème bi mooy dafa am secret secret boobu nag Cheikh Omar Sané mii la fi yàlla yónni directement sans intermédiaire ngir mu leeralal leen xam-xam boobu ngir ngeen àgg ci yàlla taxe mën a mën a dugg ci géeju kaaraange ci biir yàlla gannaaw nag yëgal nañ leen ko moom lañ naan seen convocation yegsi na risaala yonte yàlla Muhammad risaala lañ ko lañ ko joxoon Isa risaala la yoroon noox cent vingt quatre yi fi jaar yépp risaala lañ yoroon bu doon ne bu doon ne lu leneen la kon ñoom duñu xëy bés faatu am bàmmeel donc li jaam bi war a xam mooy asamaan bii tiim ñu nii présentement nii moo tiimoon Seydina Muhammad alayhi salaam gën di mbindeef suñu yonentu boobu xaatimi nabiin wa imaamal mursaliin waa moom juddu na xëy na nekkatu fi kenn ku ne di nga fa jaar lettre bi mu yoroon yóbbaale ko yàlla yàlla boppam moom tax a jóg lettre boobu du ruur du réer waaye ci ndaw yi muy ne dinañ xeebu lool ba romb seen njariñ te du ngeen ko yëg wallaahi lazi laa ilaha illa allaahu cheikh siise rabbi allahu anhu nee na mu ne baatul laa ilaaha illallah bii ak secret bi mu àndal ak ki nga xam ne moo ko yor muy Cheikh Omar Sané mii mu ne képp ku ko wan ginnaaw doo jaamu yàlla te foo jublu safara la kenn du ko waaj ndax dee day bette dem jëm ci yàlla du lu ñuy waaj mën na nekk suba dañuy rafet njort rek ne dinañ gudd fan waaye ayna ma rabukallaa wallaahi aarifi xam nañ ne dañuy dem ci dëj nit bu génn àdduna ñu jàkkaarloog néew bi jàkkaarloog nii ruuxam ni mu fe nekkee fu tar ndaysaan jaam yi naan aka baaxoon nangam ci yàlla yàlla dégluwul loolu de yàlla sa xel ak xol lay déglu si sa biir gis nga imam bi imaamu jàkk bi wallaahi kan moo mas gis imaamu jàkk tiim néew ne seedeel naa ko jul jullitam mas ngeen koo gis du am mukk ndax mënul ne xam lu muy waxam yàlla sa jaam baa ngi nii doomu diw ak diw bu dee jullit yow yàlla yaa ko gën a xam bu dul jullit yow yàlla yaa ma ko gën a xam kooku dégagé na ay responsabilité am xam nga lan la ñuy wax sigil digaale sigil eh képp ku ñëw da ngaa sa morom mbaa sigi nga li nga digaalee woon ak waa ji kooku ne la yow sigil sa wàll yow da ngeen yaakaar ne baat la bu jékki-jékki sigil ndigaale sigil sa wàll yàlla na sarax ba àgg seen loxo nangam sarax bi àgg sa loxo sarax saraxal moo ko gën àdduna koo ci yërëm dee na yërmande ku ku ñu yërëm tekki lu bari ku ñu gërëm la wax gërëm ngërmande yàlla mi ngi ci secret baatu laa ilaha illallah bi ñuy leeral fii asalaamaaleykum wa rahmatullah wa taala wa barakatu yàlla